mujjee fay maanaam ci ak tumuranke ngay dee ñi nga xam ne ñooy locataires yi nee nañu am na ay kër yoo xamante ni nañu ko tabaxee dara baaxu ba pare nag la nga xam ne moom lañ koy loué cher na ba jéggi dayoo ñenn ñi nee nañu am na kër yoo xamante ni ñetti waxtu ci guddi maanaam ngay am ndox boole ko jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy dund yéen a kaay gii di réew mi ko di jeex ñu en tout cas li ñi nga xam ne ñooy locataires ji ñoo ngi jàmbat nee nañu kër yi cher na te nag li nga xam ne mooy dëkk bi metti na ñi nga xam ne ñooy bailleurs yi ñoom nag nee nañu am na ay locataires yoo xam ne engagement yi ñu jël maanaam du ñu ko respecté ñoom bailleurs yi nee nañu nag am na locataire yoo xam ne maanaam dem jëndi ab iPhone moo leen gënal weer jot ñu laa di fay te nag bëri na ay locataire yoo xam ne kër yi ñu leen luyee dañu ko yàq ba mu ne yaxeet yéene kaay gi di Sud Quotidien xëy wax ci wàllum politique ak Aïda Ndiongue mi nga xam ne PDS la nekkoon bàyyi na waa PDS jamono ji maanaam fekki na Macky Sall fekki na coalition Mbuur ak Soow moom Aïda Ndiongue ni ki démb nee na Macky Sall tëjuma waaye nag sama tëj dafa nekk loo xam ne mënutoon a ñàkk sama dund moom Aïda Ndiongue ci yéene kaay gi di Libération na bi ma nekkee ci kaso bi sama kër njiitu réew mi di Macky Sall moo fa doon joxe dépense yéen a kaay gi nee na bureau politique bu bokk gis-gis nee ma Pape Diop démb ñoom daal nañuy gisante seen biir nee nañu nag lu jëm ci wàllum xastante ak wàllum boddi gi nga xam ne gis nañ ko si senegal ci lu soxal wàllum xeeta loolee war nañu ko moytu ndax mën naa taal réew mi ñi nga xam ne nag ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum politique ñoo war a nekk ay kilifa kàddu yi Pape Diop la kaay gi di enquête xëy wax ci élection locale yi nee na nag Ndakaaru njaay du ndax ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko jamono ji ma ngi bëgg bind sax ab liifara ci lu jëm ci wàllum décentralisation maanaam njiitul Pastef xelam jamono ci maanaam ma ngi ci Ndakaaru Khalifa Sall ma ngi def ay tournée du bàyyi kenn ak Ndakaaru ñi nga xam na ñooy waa PDS ñoom nee nañu pare nañ ci Dakar waaye pare nañ fépp ci réew mi yéen kaay gi de la témoin ñu koy fekk fa Mamadou Omar Ndiaye nee na nag rendez-nous nos mandats locaux Mamadou Omar Ndiaye nee na ñi nga xam ne ñooy maire yi maanaam war na ñoo delloo askan wi nag seen mandat yi ndax maire yi ba ñu leen fale ba léegi nii daal maanaam seen mandat jeex na bu yàgg yàgg yàgg yéen kaay gi di réew mi ko quotidien wax ci lu soxal wàllum dialogue politique bi nee na li nga xam ne mooy élection locale yi nga xam ne dañu ko bëgg a dàq loolee moo tax front de résistance nationale ñoom nag dialogue politique bi raxasu nañ si ba set si wecc ñoom nee nañu génn nañu si la ko waral nag nee nañu majorité bi dañuy jaay doole ndax majorité bi ñoom nee nañu par dañuy dàq li nga xam ne mooy élection locale yi ba 2022 te teguñu ko fenn ñoom front de résistance nationale nee ni moom la ñu bëgg a organiser élection locale yi at moomee a amal ñoom dañoo jàpp sax ne am lenn loo xam ne ma ngi koy ruumandaat ci biir maanaam ay les suuxu ñi nga xam ne ñooy société civile bi ñoom nag li ñu proposé mooy janvier 2022 opposition bi ñoom nee na ñu ànd ñu benn yoon ci loolu yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na assemblée nationale ñoom nag tey jii maanaam ñoom ñooy àtte ndax dogal bi nga xamante ni gouvernement bu Sénégal jël na ko ngir nag ñu yokk mandat ñi nga xam ne ñooy maire yi ak conseil municipaux yi ba pare dàq élection locale dogal boobu la jël tey jii nag la ci député yi di voté ci assemblée nationale dañu koy dëggal koy dàq yéen a kaay gi di xam ne ñoo bokk ci majorité bi ñoom nee nañu élection locale yi bu ñu ko mënoon a organiser ci atum 2021 dinañu ko organiser waaye nag techniquement ak lu jëm ci wàllum xoolaat fichier bi loolee munta nekk nañu ko jàpp ci février 2022 yéen kay gii di li ñu koy fekk fa Moustapha Diagne Macky 2012 nee na boole élection locale yi ak élection législative yi loolee lu mën a nekk la li nekk ci yéen kay gii réew mi quotidien mooy syndicat bi nga xam ne moo nekk kuddu ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom nag nee ne ñoo ngi koy wax université ci jëm ci am xeet loole du dëgg dara amu ci ñi nga xam ne ñooy politiciens yi ñoom seen bopp nag ñoo bëgg nag salfaañu université waaye ñoom nee nañu maanaam duñu ko nangu benn yoon yéen kaay gi de la témoin nee na Cheikh Wade jamono ji maanaam nag daan nañu koy installé moo nekk chef d'état-major général des armées nee ma sem ga wax na li nga xam ne moom la liggéey ci armée bi yéen kaay gi de sa wax na ci collectif ñoo lànk ñoom na seen xel tey na cent mégawatt nee ma ñoom Samuel Sarr collectif ñoo lànk nee na ñu dellu si waat ak Samuel Sarr ci lu jëm ci wàllum pétrole ak gaz seen xel tey na sa te nag Macky Sall ma ngi continuer di liggéey ak ñi nga xam ne maanaam ñoo saax-saaxe yàq li nga xamante ni maanaam moom mooy Senelec ñoom sax dañoo jàpp ne maanaam ak gâteau la boo xamante ni gars yi dañu ko bëgg a partager yéen a kaay gi la sa nee na en tout cas société bii nga xam ne mooy West Africa Energy gars yi commencé nañ ko ŋàññi ngir nag ki nga xam ne mooy Samuel a kaay gi de mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Abi Ndour mi nga xam ne moo doon tuumaale Pierre Atepa bi ci lu jëm ci wàllum harcèlement sexuel ni ki démb daat nañu leen di atte ca tribunalum Dakar procureur nee ma parquet bi moom nag nee na lu toll si juróom benn ci ay weer nañu ko tëj ki nga xam ne mooy Aby Ndour Atepa nag moom ma ngi laaj lu toll ci cent millions yéen a kaay gi de las Pierre Atepa Goudiaby nee na lu toll si juróom ci ay seetu maanaam jox na ko ki nga xam ne mooy Aby Ndour ngir mu bop boppam yéen a kaay gi de Libération nee na lu ëpp fukki at askan wi nga xam ne ñooy yeewoo sa dugaar nee ma département bu Rufisque ñoom nag ñoo ngi jooy ñoo yuuxu wàllu la ko waral nag lu toll ci 159 hectares ci seen suufa ay société privée ñoo ko ngar daajoo yéen gii di Stades nee na Aliou Cissé ak ñaari mat yi nga xam ne moom la ñu génn bëri na ñoo xamante ni ñi nañu ko nee ma Aliou ma ngi en sursis yéen a kaay gi nee na Barcelone ak Real Madrid ñoo ngi ci concurrence bu mag ci dossier bi nga xam ne mooy dossier Haaland moom nag staffam dem na seeti waa Barcelone ba pare seeti waa Real Madrid